ñu ngi fii ci Grand Théâtre ci occasion bi nga xam ne kii ko initié mooy As euh, défilé de mode am fii ak également rendraale omage ki nga xam ne mooy JP ñuy toog euh, ñu taxaw ak koo xam ni du ñu wax mode quand même ci réew mi te duñ ko tudd sama xaritu bopp sama jigéen Khadija Sy pour commencer sa présence fii ci Grand Théâtre tey le 22 septembre lan moo ko waral. bon sama présence euh, fii tey ci 22 septembre yi dafa am lu mu ñuy rappelé lu mu ñuy rappelé mooy naissance su Jean Pierre Dalméda nekkoon sunu xarit. nekkoon suñu frère suñu camarade mannequin bi fi nekkoon te yàlla jëlee ko fi bu yàggul dara mu nekk li nga xam ni tiis bu metti la bu dal suñu kaw dal ci le milieu de la mode dal ci euh, le milieu des acteurs parce qu'il était mannequin et acteur en même mu nekk li nga xam ni dafa metti àdduna yëpp metti Sénégal yëpp donc tey loolu mooy sama teewaay l'as des as As Moussa di sama xarit di sama frère di sama camarade ñu bokk di liggéey dans le milieu de la mode di ko rendre hommage tey ci bésu anniversaire am bi tey loolu moo waral suma teewaay fi moo fi waral teewaayu mannequin ancien mannequin ak ancien mannequin yi fi nekk yëpp voilà. alors en tant que ancien top modèle ndax kii di JP Jean Paul Delmeida mas nga liggéey ak moom lu jëm ci certainement défilé wala. oh oui euh, euh, avant tout dañu am suñu association. association des mannequins du Sénégal et ceux de l'extérieur mi ngi tudd AMS. donc JP bokkoon ci association bi nekkoon membre di participer di di di ñëw ci réunion yi vraiment lépp lu association bi taxawal gp mi ngi si kon defe naa euh, JP lu ñu liyee dafa dafa fort dafa fort waaw dafa fort vraiment waaw. ndax am na ay relations personnelles yoo xam ni Khadija si amoon na ko ak JP. Euh, JP je me rappelle euh, bi ma nekkee SICAP suma kër papa bu ñuy def réunion yi assemblée générale yi bu ñëwee. dafay euh, dafay génn nànk day rocceeku nànk dem ci bitig bi bu demee ci bitig bi kenn du ko yëg day ñëw gàddu ñaari mbuus yu ngande yu bleu yi def ci ay boisson ba mu fees bu ñëwee ne ma sista kaay su ma ñëwee mu ne ma am ñu teg fii gars yi ma ne ko mais JP yow lii nag mu a ma noo gërëm yàlla gërëm yàlla donc gërëm yàlla ci moom laa ko déggee kon gërëm yàlla boobu mu gërëm yàlla yàlla na ko yàlla gërëm fa mu nekk te foofu mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee waaw mu nekk choc bi ñu annoncé DSM lan ngay fàttaliku lu la gën a marqué ci relation wala li nga xam ne nii jot nga ko partagé ak moom. Euh, la parce que man affaire bi ma fekk Touba ma xëy yeewu suba teel gis ma camarade de chambre yi ñu ne ah xale bu góor bi kat ñu ngi koy affiché ñëpp a ngi koy statut man de ban xale bu góor sama téléphone fay ci laa jóg xool muy jupe dama yuuxu parce que deux semaines avant je l'avais vu ci benn. Euh, ci benn dîner bu ñu invité woon ma ñëw gis ko fa mu ànd ak yeneen je crois deux trois mannequins ak Cheikh mannequin muuma ñu ñëw taxaw ndeysaan ñu ñëw taxaw mu ne ma yee eh, sister ma ne ko waaw JP noonu ñu kottante noonu nuyoonte comme ni ñu faral di ko defee donc loolu daf may dafa ma daf ma marqué parce que je me dis kon man ndekete jour boobu dama doon tàggatoo ak JP mu nekkoon euh, affaire bu metti vraiment euh, bi nga xam ne du souvenir bi nga xam ne dañ koy gaaw a fàtte dafa metti nag maa ngi koy jaal Sénégal di ko jaal adduna bi di ko jaal yaayam surtout avec sa famille parce que yaayam ñàkk na vraiment ñun ñàkk nañu mais yaayam ñàkk na voilà kon maman maa ngi lay wax vraiment euh, yàlla yàlla may xolu muñ parce que du lu yomb lu métti la voilà et di ko wax ni ko métit bi ñu ngi koy partagé ak moom te duñ ko suma sa bàyyi mu ko mu alors sa présence bokk na ci li as initié tey topp modèle yu bari ñëw fii mu bokk ci li nga xam ne défilé de mode bu fi amoon loolu je pense aussi luy gën a dimbali la association AMS quand même. waaw donc association bi ñu ko taxawalee yàgg na euh, ñu nekk di ci def benn combat di ci def benn combat. donc association bi AS Tey moo ñu moo ñu regroupé ñëpp encore ñu nekkaat donc euh, mu nekk lu rafet parce que euh, nga am agence de mannequin ma koy félicité âge de passage parce que dafa am agence de mannequin tey muy def euh, remise de diplôme pour promotion bi nga xam ne ñoom ñoo génn donc ça veut dire que c'est du professionnalisme parce que gis nañ xale yi sol nañ toge jox nañ leen seen ay diplôme mu nekk pour une première au Sénégal donc là je lui tire un grand dafay wane ne que milieu bi am na doole xale li ñuy def bëgg nañ ko que mannequin yaa ngi Sénégal mais Thiongane est-ce que xam nga mannequin dañu bëri Sénégal dans les quatorze régions du Sénégal il y a des agences qui sont là-bas et donc l'AMS a prévu vraiment de faire ces quatorze régions-là de les parcourir et d'aller voir ces agences-là qui sont là-bas et d'aller voir ces jeunes mannequins qui sont là-bas essayer de faire une fédération donc ñu fédéré wu nekk nekk benn say nekk benn benn euh, euh, nekk benn pour mën a waaw nekk benn say comme on dit pour mën a vraiment gën a développer suñu secteur parce que il est temps je pense comme on me dit des euh, des amis en me disant que mais Khadija milieu bi yow danga nga war a jóg da nga war a jóg yow waxoon nga ma ko bi ngay soog a ñëw donc je me suis dit bon peut-être yàlla mi ngi koy soog a tudd donc il est temps que que ñu jóg vraiment taxawal suñu bopp wan Sénégal kan mooy mannequin yi voilà association bi taxaw na et en même temps l'association créé na aussi euh, euh, euh comment dirais-je euh, nu ñu koy waxatee sax am na lu ñu bu tudd un mannequin un métier donc un mannequin un métier l'association l'a l'a créé association daf ko créer pourquoi parce que quand on est mannequin et qu'on n'a pas de métier mais après soo jëlee retraite qu'est-ce que tu fais tu vas te retrouver sans rien du tout donc il faut avoir quelque chose dans la vie Raison pour laquelle l'association a créé un mannequin en métier. Et là, je remercie de passage à 3FPT parce que, bi ma leen woowee téléphone le, le, madame la directrice. Sophie Diallo je lui ai un message automatiquement elle m'a répondu en me disant et puis elle m'a mis en rapport avec quelqu'un et cette dame là m'a vraiment appelé moo may teg pression di ma woo chaque jour donc pour ma ñëw indi dossier pour ñu signer pour que ñu tànn yan mannequin ñooy dem commencer pour des formations pour ñu former leen accompagner leen et puis après ñu xool naka la ñu mën a leen pour que après ñu a euh, euh, voilà ñu mën a formation ñu mën a liggéey parce que euh, quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas mënoo liggéey parce que même mannequinat bi sax boo koy def chance dëgg ngay am nga bañ a jaar ci formation nga ñëw rek yàlla may la benn don nga jàll ci mais il faut être formé dans tout corps de métier et ces mannequins ont besoin de formation voilà il y a des euh, il y a des structures que l'État a mis sur place qui sont là et ces structures là moi je les euh, je à eux pour leur dire que on est là on est beaucoup les mannequins sont nombreux la nouvelle génération donc il faut les accompagner dégg nañ ko ci seen i ay kàddu euh, taxawaay bi nga xamante ne am ngeen ko ci réew mi seen diggante ak ki nga xamante ne mooy ministre de la culture ndax taxawaay bi mu war seen diggante dégg mi ngi koy def. voilà donc bala loolu nga baal ma rek je remercie d'abord les anciens et anciennes mannequins parce que y a des mannequins a des mannequins au Sénégal qui étaient là et qui sont partis en voyage d'autres sont en Italie en Espagne euh, Amsterdam euh, etc un peu partout aux États-Unis ñoo bokk def fédération boobu noonu xam nga ñoom ñëpp tey ñu tànn. ñuy voter par téléphone ñuy di voter partout ne ñun Khadija la ñu bëgg mu nekk présidente donc pour ñooñu confiance boobu ñoo jël man jox ma ko man Khadija si sama jëmm bu xeebu ni que yàlla bu yaakaar tas je ferai de mon mieux je ferai de pour que les mannequins soient vraiment reconnus voilà donc je tenais à faire ces euh, à, voilà à les donc euh, ministre accompagnement ministre de la culture euh, donc gisaguñ ko voilà moom mooy suñu ministère du tutelle voilà donc euh, maa ngi préparé maa ngi koy bind di ko wax monsieur le ministre de la culture euh, xaar ñu donc euh, ñi ngi ñëw te bëgg nañ nga recevoir ñu comme ni ngay recevoir yee ñeneen ñi voilà parce que man kay ñi ngi Sénégal am nañ doole c'est des jeunes voilà te actuellement je pense que dañu soxla jeunes yi pour jàppale leen dañu soxla ndaw yi pour jàppale leen et puis donc les mannequins sont là donc bëri nañu il faut que ñu recevoir ñu jàppale ñu jox euh, ne euh, la euh, je le connais pas je l'ai jamais vu j'ai réussi à trouver son numéro quand même je lui envoyé un message mais j'ai pas eu de retour. Voilà, mais bon, je lui tends en la jeunesse de la mode et on a besoin d'eux aussi comme ils ont besoin de nous. Voilà. voilà donc boobu léegi man maa ngi euh, maa ngi koy xeex ak équipe bi ma àndal maa ngi koy ñafe franchement bëgg nañu état jàppale ñu parce que état daf fi nekkal ñëpp donc euh, comme ni ma koy waxee tout le temps ah c'est pas parce que damay euh, visionner nii wala may wax nii non no non on a vu les footballeurs ils sont bien structurés donc ils ont leur ministère à eux on a vu on a vu il a les lutteurs on a vu les basketteurs on a vu on a vu et les stylistes aussi Voilà, donc nous les anciens mannequins et les anciens et l'actuelle génération, on est là aussi. Et on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être reconnu. Donc euh, voilà, on est là, on cherche les portes. Il faut que les portes s'ouvrent pour que, les mannequins euh, soient vraiment reçus comme les autres, on les a reçus quand même. Voilà, on a besoin de ça. Donc euh, je vous tends la nous <laughs> voilà, je vous en prie.